Moustapha nga ne présidentielle 2019 trop facile pour Macky Sall. waaw question la boo <laughs> xam ne euh, dañu ko lal. <laughs> Euh, muy laaj euh, du lu ma affirmé mhm. laaj la boo xam ne faw ñu jéem ci indi tontu li tax moo ne ñu yàgg nañ ko wax fii sax ñun ci plateau bi le mhm. ne président Macky bu ñu deful ndànk Euh, day nekk comme mbër bu bëgg a nekk roi des arènes mhm. te bañ ne doo bëreeg Balla Gaye doo bëreeg Modou Lo doo mhm. bëreeg euh, Kacades nu mu tudd Eumeu Sène ñi nga xam ne à peu ñoo man ci làmb ji mhm. cela veut dire quoi que ni euh, depuis le président Macky Sall mu falu en 2012 dafa am benn processus bu mu enclenché woon jëmale ko tudde ko woon reddition des comptes traque des biens mal acquis am ay promesses yu mu ci defoon loolu le di dox di dox di dox ba mu permettre mu éliminer au moins ñaari potentiel candidat à la présidentielle de 2019 mm-hmm. muy d' abord euh, Karim wadd bu parti démocratique sénégalais ak Khalifa Ababacar Sall maire de Dakar ñu bari jàpp ne yoon moom la dañ la ñu utiliser du man maa jàpp mais ñu bari ñoo jàpp ñoo dégg noonu ne yoon la ñu utiliser pour éliminer des challengers à la présidentielle de 2019 ñu jóge ci loolu ñu teg lu ñuy tuddee parrainage mm-hmm. parrainage ñëw candidat yu bari ñu recalé leen dans des conditions yoo xam ne jërul ñu ciy ñu ciy dikkaat léegi mu des lan définitivement le conseil constitutionnel retenir cinq candidats ñoo war a bokk ci élection présidentielle bi mhm. muy Issa Sall bu PUR informaticien la mhm. professeur Issa Sall sa Seck bu parti Rewmi mhm. auditeur consultant mooy liggéeyam Macky Sall bu APR ingénieur de formation ak Ousmane Sonko inspecteur des impôts. boo seetloo euh, juróom ñi nga xam ne ñoo nar a jàkkaarloo ci élection présidentielle yi ñu jëm. ñaar ci ñoom rek. ñoo mës bokk ci une élection majeure une élection présidentielle mm. muy Idrissa Seck d'abord mi nga xam ne mm. présidentielle 2019 mooy nekk troisième participation gannaaw 2007 2012 2019 bi ñu jëm Macky Sall ci boppam bi nga xam ne ñaareelu participation la jëm ci élection présidentielle parce que 2012 mm-hmm. la bokk ci la gagné. Mm-hmm. mu doon sa première euh, élection ak 2019 bi ñu jëm. Ousmane Sonko Issa Sall ma Madické mm-hmm. Niang kenn mësu ci bokk ay élection présidentielle ñu bari euh, jàpp ne ni mbir yi di doxee nii. suñu deful ndànk su opposition bi amul nu mu organiser woo mhm. mën na yomb trop pour le président Macky Sall parce que mhm. ñi nga xam ne ñoom lañ yaakaaroon peut-être mhm. que ni mën nañ ko yóbbu au deuxième tour ñooñu bokku ci élection présidentielle mais loolu lépp ay hypothèse la rek dinañ ci euh, euh, ñëw léegi mais nañ nañu taxaw d'abord ci li nga xam ne mooy d'abord le cas du président Macky Sall moi je dis que lépp loo xam ne un candidat ay une président à une élection présidentielle mi ngi koy def pour gagner premier tour. Macky Sall ma nga ca. hésité wu ci. amul lum ci rus amul lum ci nëbb d' abord ñu jàpp ne c' est un candidat donc il a un bilan à présenter bilan boobu la tey li ci gën a fës mooy li muy inauguré depuis quelque temps. dégg naa sax benn euh, xale bu jigéen mu ne boo boo tegee greffage bees boo deful ndànk mu jaar inauguré ko alors en tout cas am na yoo xam ne mi ngi koy mi ngi koy inauguré depuis quelque temps mm-hmm. et seetlu bi aussi mooy euh, euh, li ñu inauguré li mu inauguré yëpp li ci ëpp dañ koy inauguré après ñu tëj ko parce que c'est des chantiers encore mm-hmm. non achevés yoo xam ne liggéey bi day wéy mm-hmm. mën nañ ci jël exemple yu bari mais en tout cas moom mi ngi def li nga xam ne un candidat sortant mi ngi koy def mooy faire tout pour pouvoir présenter un bilan un deuxièmement mi ngi ratisser large ni ñu koy waxee képp koo xam ne tey jii yaa ngi politique ci réew mi soo amee njëg jël na la indi ci kawam mooy ñi ñu tuddee des mhm. gis nga parti démocratique sénégalais les plus grands ñi fa nekkoon en tout cas parmi les plus grands leaders. Mhm. jël na leen yóbbu dans son beneen bi tudd naa ko sànq mooy ñi nga xam ne ñu bari nañu jàpp ne dafa am benn système bu mu teg pour éliminer des candidats. Mhm. mais tout cela pour mu permettre ko mu gagner au premier tour. beneen bi mooy l'argent une élection présidentielle c'est beaucoup d'argent et quand tu regardes les choses comment ça se passe euh, bu la ci kenn ndax di fii le 24 février l'argent va couler comme pas possible dans ce pays te déjà ça a commencé euh, beneen bi mooy euh, li ñu tuddee caporalisation des médias tey jii groupe de presse yi ne ci réew mi soo ci dee wàññi du duma tudd kenn ndax bëgguma tooñ kenn mm-hmm. mais ñi ci ëpp li Sénégalais yu bari jàpp mooy defuñu dara lu liggéeyal loo xam ne moom mooy falaat président Macky Sall et il y a des faits mhm. qui tendent à prouver ça des groupes de presse mhm. des de grands noms de la presse yoo xam ne tey jii leur travail de tous les jours mooy fexe ba mhm. le président Macky Sall faluwaat donc kooku pour un candidat na nañu jàpp ne moom li mu war a def mi ngi koy def pour faluwaat baax na u baaxul d'accord nañ ou d'accord ñu ça c'est un autre problème que chacun am nga sa lecture boo ci am mais en tout cas moom il se donne les moyens comme ni ko tubaab bi waxee mhm. pour gagner cette élection présidentielle là et ça dès le premier tour mhm. kan lay jàkkaar lool ñu taxaw d'abord ci Idrissa Seck mhm. Idrissa Seck euh, un homme politique la boo xam ne dama naan il a eu plusieurs vies d'abord Idrissa Seck quand Wade est arrivé au pouvoir ñu bari dañoo jàppoon ne c'est le dauphin désigné de Wade il était dans sa toute puissance euh, bi Wade nekkee au pouvoir ñu dem ba mu jàgg il est mêlé dans moom dans l'affaire des chantiers de Thiès accusation dëgg la ou war a dëgg on a suivi l'histoire fan la mujjee mais en tout cas moom li mu jàppoon à l'époque moo di ne dañu bëgg a xañ moom pour teg doom bi nga xam ne moom la Abdoulaye Wade jural boppam on a vu ce qui s'est passé bi mu jógee ci loolu mu nekk benn genre disgrâce pour moom il est allé en prison mais en quand il est sorti de de prison bokk ci présidentielle 2007. Mhm. bul fàtte mu ko ne moo jël deuxième. moo jël deuxième derrière le président Abdoulaye Wade. loolu mayoon na ko beneen benn aura. Mhm. mais teewul après 2007 ba 2012 mooy les derniers cinq ans euh, du mandat de de de de Abdoulaye Wade. Mhm. Idriss Seck xëy na liggéey bi ñu doon xaar ci moom euh, pour mu def ko defu ko et il y a eu l'effet bi nga xam ne il est sorti euh, du euh, régime de Wade vers 2009 2008 moom aussi doublé Idriss Seck dem palais présidentiel mais bi Macky Sall ñëwee pouvoir li ñu seetlu moo ne sa Seck dafa jël recul. jël recul te dès le début mu jël recul commencé dem liggéey ci parti am y a eu un divorce avec certains membres de son parti. Mm. mais bi ñu gisee Sénégalais yi commencé wala boog ñenn ci sénégale yi commencé di doyal ci régime mu Macky Sall rek mhm. xel yëpp dañu demoon ci Idrissa Seck ba mu commencé waat di amaat beneen aura mhm. mais il y a eu entre temps moo tax ma naan la c'est un homme à plusieurs vues mhm. il y eu entre temps l'affaire euh, Makka ou Bakka ça lui a coûté quand même très cher <coughs> maintenant ñu jëm ci une élection présidentielle mu am benn kuréelu opposition boo xam ne war nañoo mat vingt cinq candidats yu bëggoon a bokk ñenn ñu éliminer leen te loolu Idrissa Seck dina bokk ci forcément man maa la ko wax tey fii ñi nga xam ne ils vont bénéficier de ça parce que ces candidats là ñu reculer na ñu recaler na la leer ne ñu toog seetaan. Mhm. dinañ bokk ci élection yi nan la ñuy bokkee par des alliances te Idrissa Seck va profiter de ces alliances là mhm. parce que am na si ñoo xam ne il y des relations yu ko liées ak ñenn ñi bëgguma tudd tur mais am na ci déjà mhm. d'ailleurs le premier exemple que je donne mooy Thierno Bocoum mhm. il avait réew mi dem créer son mouvement Agir mhm. il a di hier que ni moom il va voter Idrissa sec te dina am ñeneen ñoo xam ne il vont faire la même chose donc kooku mooy le cas euh, Idrissa Seck nga jël keneen muy euh, Madické Niang avocat ñëpp xam ko ci réew mi il a de solides relations uh-huh. surtout dans les euh, foyers religieux du Sénégal moom maître Madické Niang uh-huh. euh, tey jii son défi mooy comment faire pour que ñi nga xam ne ñoo naroon a ànd ak Karim Meïssa Wade si s'il était le candidat du PDS uh-huh. ñu voté pour moom te loolu li ko mën a may da siy bokk ki nga xam ne mooy président Wade newoon na tey nekk newoon tey euh, Euh, nu ñu koy waxee Madické Niang mooy suñu candidat puisque Karim Wade mënul dem loolu su ko waxoon mhm. man gëm naa ne dina bari ci parti démocratique Sénégal ñoo xam dañu ànd ak moom tey jii y a des de hauts responsables du PDS yoo xam ne nee nañ ils ont parrainé la candidature de maître ah, Madické Niang mais la difficulté mooy comment faire pour que l' électorat du PDS. Ah. dem vers Madické Niang parce que l'électorat au PDS li ci xaw a compliqué mooy souvent dafa bari ñuy tuddee un peu des de Wade cest dire que des gens yoo xam ne ils sont dans le PDS. Ah. seen yoon nekkul ci kan mooy candidat kan moo ko nekkul su Wade nee nañ votel ah. Fabel ñu votel Fabel te loolu dafa am jusqu'à présent ci li nga xam ne mooy le Parti démocrate sénégalais donc la difficulté pour Madické Niang c' est ça cest pour que au-delà des responsables du PDS yi nga xam ne am nañ un peu de lucidité xam ne Karim Wade mënul nekk candidat à la présidentielle ñu dem soutenir ko te loolu Wade am na un rôle bu mu ci bu mu ci war a bu mu ci war a jouer mais quoi qu'il en soit le PDS ils ont été très clairs mooy ñoom du ñu soutenir kenn parce que pour ñoom élection présidentielle wóorul am ci réew mi te du am mais loolu c'est autre chose parce que je vois mal mm -hmm. cette opposition tey la mhm. tenue d'une élection présidentielle au Sénégal mhm. euh, ñu jël keneen muy Ousmane Sonko Ousmane Sonko depuis mu génn élection législative il a créé son parti en 2014. Mhm. élection législative mu participé ci mais on a li ñu mën a jàpp mooy c'est un leader politique qui a le vent en poupe. Mhm. lan moo ko may mooy d'abord son discours qui accroche surtout les plus jeunes. Mhm. déjà c'est quelqu'un qui apporte un peu de fraîcheur à la à, euh, à l'espace euh, nu ñu koy waxee politique au Sénégal contrairement. ak pas yi nga xam ne ñoo fi nekk depuis 1960 ah. mais il apporte un peu de fraîcheur mais également il apporte un peu de nouveauté ah. par rapport ak ni nga xam ne noonu la ñuy defee ah. la politique au Sénégal mais Ousmane Sonko traîne également des lacunes lan mooy lacune am moo di ne d' il n'a pas l'appareil wax naa ko fii vendredi passé c'est-à-dire une présidentielle da soxla un appareil bu mel ne bu PS par exemple bu PDS par exemple nga xam ne c'est des partis qui sont euh, ancrés sampu ci chaque partie du Sénégal foo dem ci Sénégal fekk leen fa c'est facile pour ñoom ñuy am ay relais uh-huh. je crois que le PASTEF tey jii euh, c'est un travail difficile à faire uh-huh. mais suñ ko suñ ko deful ce sera compliqué pour ñu pour ñu euh, dem euh, à la présidentielle leneen li moo di bu uh-huh. buñ fàtte mukk ne la barre pour passer au pour dem deuxième tour présidentiel euh, la barre est très haute tey jii ce sera difficile pour Ousmane Sonko mu atteindre cette barre là je dis pas que c'est impossible parce que politique la ñu nekk. Mhm. lu tax may wax ne ce sera difficile moo di ne bul fàtt ne en 2017 les dernières législatives c'était en 2017 mhm. Sonko mi ngi amoon à peu près 33 706 voix. ñoo ko voté loon d'ailleurs le minimum bi nga war a am pour nekk député buñ ci jàppoon moom du nekk député plus fort reste moo ko ah. permettre mu siéger à l'Assemblée nationale okay. donc ce qui mooy Eh, de 33 000 mille à, en 2017 mhm. à aujourd'hui mhm. Ousmane Sonko def na des pas en avant mhm. mais nañu comparer un peu bi Macky Sall di jàll euh, premier tour élection 2012 pour dem deuxième tour xam nga ñaata voix la woon 719 377 voix le Macky Sall amoon pour yóbbu Ablaye Wade au deuxième tour tu vois un peu le gap qu'il y a entre li Macky Sall amoon premier tour 2012 ak fii Ousmane Sonko toll en tout cas fi parti am tolloon ci législative bi donc de 33 000 à 700 000 tu plusieurs fois pour mën ko mm. donc c'est pourquoi je dis que la barre est très très haute et que il faudra vraiment un travail extraordinaire pour mm. que Ousmane Sonko ak son parti mën a atteindre cette barre là mm. mais je dis pas que c'est impossible parce que politique la ñu mm-hmm. encore une fois nga nga jël par exemple le candidat Issa Sall mm-hmm. législative yi mu génn informaticien grand professeur euh, tout ce que tu voudras uh-huh. li ko may mu nekk mu am je il a trois députés ou quelque comme ça c'est qu'il avait recueilli cent cinquante cinq mille quatre cent sept voix pour am député yooyu mais loolu soo ko rapporté au à la présidentielle même si élection yi ça n'a rien à voir uh-huh. pour mu mën a atteindre li nga xam ne moo permettre woon euh, Macky Sall mu dem deuxième tour mooy sept cent et quelques mille voix ah. ce sera très compliqué mais dafa am nag benn erreur boo xam ne très souvent dafay dal analyste yi ci ah. euh, le parti parce que xam nga tubaab bi dafa am lu ñuy tuddee plafond de verre ci élection présidentielle par exemple Marine Le Pen en France dañ naan dafa am benn plafond de verre boo xam ne lu mu dem dem pour mu romb ko day jafe am na ñu bëri dañuy jàpp ne plafond de verre bu bu pur mooy nombre militant wu nombre euh, nu ñu koy waxee sax euh, taalibe yi bokk ci daayira mhm. Moussa si diin wala Moussa daat ñu ne pour mu dépasser loolu lu jafe lay doon moi dikk dis que c'est une erreur xamal tax mhm. parce que le pur ni ma ko gisee mhm. ne se limite plus à un daayira le daayira man nga jàpp ne simplement mouvement de soutien lañ ko mën a jàppee mhm. parce que parti bi seen parti la mhm. mais le PUR tey dépassé na ce cadre la et que il faudrait pour que Issa Sall espérer par exemple faire mieux qu'aux mooy mhm. euh, am voix ay koy permettre mu dem deuxième tour il faudra fair ce travail la pour que l'électorat dépasse largement li nga xam ne moom mooy ni fi la nit ñi bëgg a mooy daare daayira bi te ma gëm ne du daayira boobu donc lii mooy juróomi candidat yi war a jàkkaarloo à l'élection présidentielle mhm. Mhm. doo ko xoolee bonk da nga naan ça risque d'être facile pour le président Macky mais mu am benn paramètre boo xam ne man maîtriser wu ma ko Sawaay maîtriser wu ko Cheikh Tidiane maîtriser wu ko mhm. ñoom leader politique yi mënuñu ko maîtriser mooy l'électorat sénégalais l'électorat sénégalais bokkuñu ci ay parti c'est-à-dire que les Sénégalais qui sont dans les partis politiques ñu tuuti lañ li ñuy tànqal yëpp coow li bari fu ñu jógee violence et tout mhm. ñu tuuti lañ ñu bokk ci parti ñu bokkul ci parti yi te nga xam ne bu dimanche le 24 février dinañ dem vote ji ñooñu ñooy def la différence te ñooñu kenn mënul maitriser quel sera leur réaction le 24 février mën nga leen jox bilan bu la neex mën leen jox programme bu la neex ah. mais le 24 février chaque Sénégalais va se lever ku ci nekk ak li nekk sa bopp mm-hmm. ku ci nekk ak ni nga yeewoo ku ci nekk ak ni nga xalaatee pour dem voter te loolu benn candidat mënu ko maitriser loolu mooy incertitude mm-hmm. bi am ci élection présidentielle et finalement c'est ça le charme d'une élection présidentielle. waaw man li ma ci li ma li ma ci bëgg a wax rek en fait euh, ce sont les analyses que moom la émettre maintenant euh, politique quand même euh, dafay varier à tout moment. Euh, donc day varier à tout moment veut dire que li muy analyser sax mun na bañ a demee noonu. parce que déjà on a vu que peut-être si alliance yooyu muy wax si waa citoyenne 525 boobu donc ñoom ce qui est sûr gens qui vont rallier. benn bokk yaakaar loolu moom c'est sûr. non non c'est sûr c'est sûr parce que parce que xam nga la moo tax ma lay wax loolu xam nga comme ni nga ko waxee noonu. ku nekk da ngay natt sa bopp. pour xool après ultérieurement maanaam euh, seen projet yi nga xam ne c'est dans le court terme qu'est-ce qu'ils peuvent avoir. Mm-hmm. wala qu'est-ce qu'ils peuvent au moins représenter vis-à-vis du président. Mm-hmm. loolu nag approche la loolu moo ngi dépendre si président ban appréciation la si am ci loolu. comme ni mu ko waxee sànq il n'est nga xamante ne nii da leen a obligatoirement dañuy nangu dem alliance ak ñi nga xam ne mooy opposition bi mm-hmm. c'est pas du tout sûr parce que la preuve exactement parce que la mm-hmm. preuve am na si ay sous coalition yoo xamante ne ñoom ñi ñu àndaloon peut-être dem ci parrainage bi mm-hmm. bu ñu demee ba ñu génnatuñu ñoom dañu préféré toog bañ a topp ndigal ki nga xam ne mooy tête de file bi donc loolu ça arrive et nous sommes en politique donc ku nekk dangay ngay jéem a calculer loo xamante ne tamit peut-être jàpp nga ni mooy li gën donc ku nekk loolu ngay jàpp doon doon naa bëgg li mu wax ni d'accord naa ci trop ak moom euh, doon naa bëgg euh, su alliance yooyu day am ñu koy def sur la base d'un projet de société c'est-à-dire que par exemple man j'ai le droit chaque homme politique a le droit euh, tey nekk camp bi xool projet wu société wu kële ne moo la gënal bii nga gis sa bopp nga dem mais li mu wax nii dafa am solo te bàyyiwu leen ci xel moo di ne euh, souvent la classe politique et ça un problème de la classe politique sénégalaise mm-hmm. suñ dee def des alliances dañuy def alliance dans euh, le court terme dans l'immédiat c'est-à-dire que ils dis su candidat bi jàllee lu may nekk <laughs> dégg nañ ko fii Ablaye Wade a dit ici en 2000 que ni Djiboka lui a demandé un poste de vice-premier ministre s'il gagne mu ne ko loolu amul donc certainement et ça va se passer comme ça les gens quand ils vont s'allier dañ naan euh, man damay ñëw je j'ai un parti j'ai des militants mais suñu gagné je serai quoi bul fàtte ne avant 2000 euh, bi ñuy dem présidentielle 2012 au deuxième euh, 2000 2000 déjà deuxième tour mag euh, Ablaye Wade ni mu convaincre convaincre Sénégalais yu bari parce que bul fàtte ne y a beaucoup de Sénégalais qui pensaient que ni Wade wuur la jox réew mi wuurul jox ko réew mi lan lan kan moo servir de caution à Wade pour que sénégalais wóolu ko c' est Moustapha Niass Moustapha Niass pourquoi parce que Wade a dit dès le début que ne su ma gagné Moustapha Niass sera mon premier ministre et ça ça a donné de la confiance à beaucoup de sénégalais des choses comme ça effectivement da nga koy da di si dégg d'ici la présidentielle mais comme il dit la wax naa ko sànq ni tout comme les sondages photographie la rek ça évolue ça évolue et ça va évoluer d'ici le 24 février. pënd bi wuroogul comme on dit. mais Moustapha aussi. Hmm. Euh, askan wi eh, il faut ñu leen ñu bàyyi xel ci côté marchandé boobu ñuy wax. parce que hmm. nit ñi defatuñu euh, quand même te euh, transhumance sénégalais yi ñoo dem ba. dañ ko suur. Mhm. boo nee diw dafa transhumé sax am na benn bët déjà boo xamante ne ni moom nañ lay xoolee. Mhm. donc c'est pas forcé yow da ngay transhumé rek xëy na ñi nekk sa ginnaaw ñëpp dañu war a ànd ak yow forcément. Mhm. loolu aussi foog ñu bàyyi ci xel euh, a plusieurs raisons euh, suñu société y a plusieurs raisons qui poussent les gens à voter pour tel ou di topp Fabel bañ a topp Fatou y plusieurs choses li mu wax sax y a des yoo xam ne parfois tu les maîtrises pas ngay dem si benn dëkk. Euh, benn waay euh, bokk ci baat ba mu nekk mu transhumé nga ne yóbbuwul kenn fekk yóbbu na ay nit parce que y a des gens autour de lui qui pensent que tant que kooku mi nga am ay poste ñoom ils seront bien parce que li muy am ak kas ne ci politique le ñoom la koy bokkal mhm. mais ñooñu encore une fois euh, y a une conscience citoyenne ki s'est développée depuis 2000 jëm 2012 sax avec euh, des mouvements de la société civile des mouvements citoyens qui sont nés un peu partout dans le pays ah. et qui ont permis développer benn conscience citoyenne boo xam ne je crois que jusqu'à présent la classe politique duñ ci bàyyi xel il a beaucoup de Sénégalais yoo xam ne ils vont avoir l'âge de voter c'est ah. des jeunes Sénégalais formés à bonne ah. école te seen yoon nekkul ci leader politique bi transhumé na fële wala transhumé fële ils des choix basés sur des choses yoo xam ne ñoom rek ñoo ko xam donc encore une fois du ma ñi transhumé du ñu yóbbu kenn. Mhm. mais gëw ma ne dinañ yóbbu lu mën a fal nguur. gëmu loolu gëmoon ne dinañ yóbbu lu fal nguur dañuy mhm. daal di jóge ci point boobu dem ci suñu ñaareelu point euh, nga ne contexte pré électoral les germes de la violence waaw xam nga euh, violence euh, politique ci Sénégal mhm. souvent suy dégg Sénégal ñuy wax ci politique ak violence ci as l'impression que ni day doog a xew c'est-à-dire qu'on a l'impression que ni ñun suñu réew mi ci politique mosul am benn violence moo tax euh, dalay jaaxal souvent soo déggee ñenn ñi génn def ay appel def ay ñaan et cetera et cetera mm-hmm. soo revisiter l'histoire politique du Sénégal te xam naa moom mi dina ci ñëwaat sànq mm-hmm. avec euh, son invité euh, invité Fatou bu ñu ñëwee di wax ci euh, royuwaay mm-hmm. l'histoire politique du Sénégal y a eu plusieurs violences quand yoo xam ne daf ko marqué mhm. depuis élection wu mai 1951 yi nga xam ne moo doxoon ci diggante Lamine Gueye ak euh, Senghor y a de la violence mhm. en 1952 élection euh, assemblée territoriale Mamadou Dia le raconte d'ailleurs dans son dans son livre mhm. y a eu de la violence nañ à l'époque Senghor a échappé à deux tentatives d'attentat Senghor benn bi à Kër Madiabel beneen bi à Mboss l'histoire politique du Sénégal 1978 quand Ablaye Wade a créé son parti en 74 78 mu dem di à des élections il y a eu de la violence Ablaye Wade dem na fii ci Joal pour ñu jëlee ko fa dañ ko fa muur euh, comme comme jigéen muur ko musóor ko pour man ko dawale génne ko pourquoi parce que le parti socialiste à l'époque ñoo ko doon ñoo ko doon attaqué suñu xam-xam sorewu ci torop ndax jàng mi sorewul mais les événements de Maka Koulibantang kenn fàttewu ko guet-apens la ñu def euh, euh, Ablaye wadd ak son parti xeex yu métti moo fa am. Mm. les événements de Gidi Lodj ci ci ci Fouta bi ñoom Sada Ndiaye ne Ablaye Wade du dugg seen seen seen dëkk boobule mais xeex yu métti ñoo fa am ñoom le sénateur Meïssa Sall ak ñoom Pape Samba Mboup dañ lay raconter ne à l'époque bi Wade di dugg ci dëkk bi bi jaas yi jógee bañ commencé dóor yat yi ci kaw oto bi ñoom ñoo euh, muuru ci kaw Wade pour yat yeeg jaas yi bañ ak si moom. loolu c' est l'histoire politique du Sénégal plus récent en 88 ñëpp ngi rappelé violence yi am ci Sénégal mm-hmm. des policiers ont été tués fii ci centenaire muy dem di dem ba en 93 y a eu de la violence en avant ñuy dem élection y a de la violence mm-hmm. renouvellement au parti socialiste ay nit dee nañ ci Demba Diop mi ñu de stade ci ay renouvellement lañ jëlee ba kanam mm-hmm. soo demee par exemple en 2011 2012 mais ay doomu aadama dee nañ fii ci euh, nu ñu koy waxee euh, fii ci euh, place de l'Obélisque mais yàggul donc quand on reparle de violence en 2019 je me dis que ce n'est qu'une histoire qui se répète maintenant la question est de savoir comment mm-hmm. faire pour que notre démocratie arrive à un niveau boo xam ne danañ dem ci élection mm-hmm. yu apaisé kenn du rey kenn kenn du toj bopp kenn ñu dem vote ji wàññeeku ñibbi te loolu la classe politique dañ ci am une grosse responsabilité li mm-hmm. tax moo di les sénégalais ñoom demuñu xëy rek dem di dóorante sénégalais yi ñi bokk PS ak ñi bokk PDS ak ñi bokk APR. Mhm. te ay mbo nekk ay mbokki neen xeexuñu la classe politique léegi ñoo am benn vice bu ñu yore mooy ñoom ñëpp dañu ay milices li xew ci réew mi. Mhm. c'est pas des gardes du corps c'est des milices. te du le parti au pouvoir du le parti d' opposition parti yëpp ko am parti boo fa dem fi ne nii siège parti boo dem kër leader politique boo dem di nga fa fekk ay ponkal yoo xam ne bu ñu jàppoon Balla Gaye du bouger ñu taxaw takk seen ay matraque ak yëpp alkaati yi duñ leen désarmé gendarme yi duñ ko def état bi toog di seetaan fii la ñu génne bërki dem benn vidéo tudde ko les marrons lan les marrons en feu xaw ma nu ñu ko waxee les marrons du feu xaw ma les marrons du mais nit teg seen bët kenn du ko arrêté tey jii boo xoolee le cortège du président Macky Sall au-delà de la sécurité bi nga xam ne la république moo ko ameel mais tu fois des des guri gouri yoo xam ne dañ koy topp qu'est-ce qui explique ça bërki démb nee nañ benn meeting bu doon am ci xaw ma ban dëkk ñoom ñoo ko tas dem ba ci guddi attaqué nañ euh, le siège de euh, Sonko uh-huh. Pastef xaw ma kan moo ko attaqué xaw ma waa Pastef la xaw ma ñeneen mais en tout nañ ko uh-huh. oh, yaayu attaque loolu moom leer na yaayu fii concert Wally Seck à l'université ñu tas ko donc des choses comme ça mooy am ci réew mi ñu koy seetaan euh, les religieux danañ ñaan ba sonn danañu wax ba sonn mais li war a am moo di ne Sénégal il faut que ñu li sama benn mbokk wax bind démb ci page Facebook am mhm. il faut que ñu bu ñu bëggee régler ces questions de violence là il faut que ñoom habitude ki tooñ ñu ne ko yaa tooñ cest dire que mhm. bu bu bu nit nekkul ci dëgg mhm. ñu tudd turam ne diw mii nekkul ci dëgg moo tooñ lii nañ ko arrêté bu ñu ko bàyyee dina jur jee ci réew mi mais su fekkee ne danga gis ñenn ñi ñu yor yàpp jëm ci ñeneen ñi mhm. nga toog naan bàyyi leen xeex bi yow yaa seetaan ko nar a gaañ yow yaa naan ki yor yet wi tegal yet wi yaa ngi dégg mhm. su fekkee ne dañu gis le parti au pouvoir un ministre de la république taxaw ne j'ai recruté de gros bras mhm. mais loolu ku yor kàddu war a wax da ngay def ni Youssou Touré wax Youssou Touré bu APR ne ministre de la république doo taxaw naan j'ai recruté de gros bras loolu dafa ñaaw te ñiy woote jàmm loolu dañ ci war a wax ne loolu na dakk su ko defee nit ñi xam mais su fekkee ne ñii dañoo yor doole jëm ci ñeneen ñi nga toog naan bàyyi leen xeex bi mais buñ gaañee nit da ngaa seetaan. Mhm. te loolu sax Moustapha doguma la su dakkul mooy indi lu ku mel ni dégg naa Omar Faye taxaw ne moom it am na téeméer Omar Faye bu tëngee bi mu déggee ñu ne am na euh, Mame Mbaye Niang recruté na ay gros bras moom mu ne am na 500 Baye Fall. waaw waaw léegi ki wax ne am na. Euh, ay groupe braay recruté mhm. bàyyi ki wax ne am na 500 Baye Fall bàyyi ki attaqué dem euh, siège Sonko mhm. bàyyi keneen bàyyi keneen mais boo de ba pare naan nañ nañ nañ voté ci jàmm mais non du sotti il faut que ñoo am habitude ki tooñ ñu ne diw moo tooñ mhm. takk der yi ñu may leen liberté bu mat sëkk boo boo attaqué nit nga bokk ci pouvoir nga bokk feneen ñu jàpp la def ci kaso bi bul fàtte mukk ne fii lañu ñu le journal L'As ak 24 heures waaw ci contexte yu mel nii ba léegi ñu leen attaque Fouras. Fouras. Mhm. Hmm? coach. <laughs> bu fàtte ne fii ci fii ci Mermoz ci buntu siège yu mairie wu Barthélemy Diaz. Mhm. faat nañ fa bakkan. ci mhm. contexte bu mel nii. à l'époque ci le le pouvoir d'Abdoulaye Wade ci lañ arrêté. Euh, Barthélemy Diaz bu Macky Sall ñëwee au pouvoir mu génn.